asalaamaaleykum sama mbokk doomu aadama yi yàlla dafa wàcce ci man message bu jëm ci jaam ñëpp ma bëgg koo wax ba ñëpp dégg ko damaa tëdd guddi gis jumaay Tuubaa sëñ Tuubaa nekk ci kaw tàllal loxo teg loxo di joorom ci dënnam daan ni mbubb mu weexee noonu la lépp mu weexee ku taq yaa taq waaye moom taqul muridu laay bépp jaam boo xam ne gëm nga ne yàlla mooy sa buur murid nga ku ñuy wax di la suul sa nguur day jeex nguuru yàlla rek a fi des bu kenn tooñ kenn yàlla sonal kenn fu yërmande ne yàlla nga fa fu yërmande newut yàlla new fa murit ca der ka liggéey jaamu yàlla ci wetu ndijoor gi nii ma gis maam Seex Faal ñu ne yàlla da koo gëreel ci gi nii ma gis bant bu gudd bu am croix am liir bu xees bu yëg ko wàcc ñu ne mooy instant nu Mariam ñu ne ma instant nu Mariam mu dellu si nekk maam Seex Faal ñu ne ma Sëriñ Tuuba maam Seex Faal ak instant nu Mariam ak gaa yu baax yi dañoo ñaanoon yàlla ngir yàlla jéggal jaam ñi yàlla nangu na ko ñu jaam ñi ñu war a bëggante soppante yéenante jàmm jéggalante suñ ci saxee suñ ci saxee te muy dëgg ci ñun yàlla dafa ñu teraanga joo xam ne dootu ñu tàggoo moom du caagee ne dañ fi jóge yàlla sax ñoo teral fii la ñu yàlla teral teraanga joo xam ne fu ñu mënti dem ànd ak moom asalaamaaleykum sama mbokk doomu aadama yi yàlla dafa wàcce ci man message bu jëm ci jaam ñëpp ma bëgg koo wax ba ñëpp dégg ko damaa tëdd guddi gis jumaay Tuubaa sëñ Tuubaa nekk ci kaw tàllal loxo teg loxo di jooram ci dënnam daan ne ni mbubb mu weexe noonu la lépp mu weexe ku taq yaa taq waaye moom taqul muridu laay def jàmm boo xam ne gëm nga yàlla mooy sa buur murid nga képp ku ñuy wax di la suul sa nguur day jeex nguur yàlla rek a fi des bu kenn tooñ kenn bu kenn sonal kenn yàlla sonal kenn fu yërmande ne yàlla nga fa fu yërmande newut yàlla new fa murid ca der ka liggéey jaamu yàlla ci wetu ndijoor gi nii ma gis maam Seex Ibra Faal ñu ne yàlla da koo gëreel ci wet gi nii ma gis bant bu gudd bu am croix am liir bu xees bu yëg ko wàcc ñu ne mooy instant nu mariam ñu ne ma instant nu mariam mu dellu si nekk maam Cheikh Rafal ñu ne ma Serigne Touba maam Cheikh Rafal ak instant nu mariam ak gaa yu baax yi dañoo ñaanoon yàlla ngir yàlla jéggal jaam ñi yàlla nangu na ko ñun jaam ñi ñu war a bëggante soppante yéenante jàmm jéggalante suñ si saxee suñ si saxee te muy dëgg ci ñun yàlla dafa ñun teraanga joo xam ne dootuñu tàggoo moom du caagee ne dañ fi jógee yàlla sax ñoo teral fii la ñu yàlla teral teraanga joo xam ne fu ñu mënti dem ànd moom